GTV 70. Le Sénégal en image. asalaamaaleykum wa mbokki àdduna mbokki jullit mbokki taalibe yi mbokki murit maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant bu wér wér tey nag euh, dañ doon waxtaan jëmale ci safar bu nee safar ni safar bu nee 18 safar ni màggalu Touba màggalu Touba màggalu Touba. wacc ci contexte bo xamanteni ni magal euh, euh, gulet ñuy magal ñepp seen xel aduna bi yëpp dem ci magal ndax magal dafa dajé ben xew-xew bu ñu covid 19 magal nak pour ñu mën ko waxtané ci contexte bobu faaw ñu dellu magal xam lan moy magal magal Touba mi ngi amone 1895 moko waralon ci dem Serigne Touba doon dem di wuy ji tubaab bi ko convoqué woon euh, mu nettali ko boromam ci asiru wax ni dafa jot ndigal ci suñu borom mu dem liggéeyal yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon la ko teg màggal mën na ni yitte moo ko ko teg ndax am na feneen bëri bëri fu ko sëriñ bi euh, yitte ji mooy sëriñ touba ba yàlla dajalee góor yàlla ya kenn ku ci nekk di am lu wo mom yitté am jenn rek la wo muy bëgg gi mu bëgg yenen tou sallallahu alayhi wasallam ak it wo xeetam bi bu ëllëgé ñëpp tay yitté joju nak moko indil indil ak suñu borom ba suñu borom teg ko nattu bi di liggéel yenen tou sallallahu alayhi Wasallam. ci ay nattu nattu yoy nak commencé ci bis bi nga xamanteni ni lañuy la Touba di 18 safar mur jépp magal. magal magal nak serigne Touba dako tambalé cai ci ay choono waye bam doone choono coono wuko dako ko da koo wéetoo dane yéen leen ma dem liggéeyal yenent bi ci bisu 18 safar bobu lako tambalé di dund ay choono di dund ay choono magal sak sak 18 safar bu jotaan serigne bi suñu borom day jëlat ay nattu ak bala ak choono tek koko mu di ko dund muy metti lool waaye boobu da daan màggal di ci sant boromam waaye daaw ko defandoo kenn musu koo woote musu koo santaane ndax sëriñ bi bu mettee moo koy wéetal boppam ndax loolu la jaayanteeg boromam mu ko amal di amal di amal ba suñu borom delloosi ko ci réew mi 18 safar bu jotaan suñu borom di ko teg ay wopp ak i mettit ba benn bis 18 safar du jot sëriñ bi toog di xaar suñu borom di ko tegi nag yàlla xamal na ko bis ni tey nekkatul ay natt waaye ay xéewal ak yi pay rek la ñeel la nga doon sàkku ci xeetu yonent bi muy ay ngëneel rek moo lay moo lay moo lay dikkal boobu la sëriñ Touba nag santaane nag ñu ñëw bokk kook moom comme li ngeen ci njëkk a jàngat mooy ba mu mettee da ko wéetoo waaye ba mu demee bay neex ci la woon ñëpp ni kaay leen ngeen santale ma ci suñu borom waaye cant njëkk gi moom ba muy sant yàlla ci ay coono ci ay méttit nga xamante ni day sant ñu koy dolli méttit boobu woowu wóolu woon kenn ndax buggul yéenewul kenn coono yooyu ku dul jëmi boppam ji waaye ba mu neexee daa woo ñëpp ni law leen bokk ak moom cant gi ndax xéewal ak yërmande ak i teraanga rek la ci suñu borom dëxëñ kon loolu tey jii buñ demee ba toll ci mooy waral ñëpp di ko wuy di ko santale yàlla saa su nekk muy gën di màgg saa su nekk muy gën di kawe saa su nekk muy gën di neex ñu toll ci moment boo xamante ni nii kenn ku ci nekk naan ndax loolu dañ koy dakkal ndax loolu dañ koy bàyyi ndax aw as wopp a ngi fi kuy eh, dalee ngi fi kon boobu dañ leen di wax ni màggalu Tuubaa du bis bu ñuy fomm du bis boo xamante ni sax suñu borom da koo fomm ci bis yi ndax bis boo gis am bis yi yàlla sàkk ci àdduna yëpp am nañu ndey am ñu bàyyi bàyyi bis yi nag maanaam ndeyu bis yi sax mooy bis penc ndax bis boo gis ci àdduna rek boo boo ci nekkee bu fekkee ni bis boobu amul dara lu la ci waajalal bis penc rek jàppal ni bis boobu bisu iblis la waaye bis boo taxaw di ko màggal ci kaw suuf nga xool bis boobu noonu lan cay def mooy la lay fàttali bis penc jàppal ni bis boobu bisu yàlla la jëf joo ciy defit jàppal ni bu fekkee du jëf ju lay waajalal taxawaay bis penc ba jàppale jëf iblis ba bu dee jëf joo xam dalay waajalal jëf joo xamante ni dalay fàttali euh, bis penc wala dalay jëriñ ca bis penc bis wu lay jëriñ ci yàlla la waaye bis yooyu li ñuy màgg màgg ci bis yëpp suñu borom bu ñu demee bis penc bis yëpp ak lan ca daan def lépp lay annule kon dañuy wax ci annulation màggal tuubaa yàlla moom dana annulé bis yëpp waaye benn bis rek la dul annulé ay jëfam mooy ban mooy bisub 18 safar ndax sëñ Tuubaa bu mu koy digle dañuy ñëw leen ngeen santale ma yàlla ñu ne ko nu ñuy santee mu ni ci ginaar ba ci gileem lu waaye am na ma ko berndeel jaam yi nga gis ni ñaari sëñ Tuubaa santaane ci bisub màggal mooy loo xamante ni bu demee bis pénc kenn ku ci nekk loolu ngay taxaw di ko xaar ngir suñu borom jagleel la ko mooy nga tàbbi ci cant gi mooy nga tàbbi ci mberde gi nga xamante ni moom la suñu borom di berndeet jaam yi kon cant ak bernde mooy loo xamante ni nii lépp suñu borom dina ko supprimer ba mu des cant ak bernde te sëñ Touba nee na bu mu demee ba nga xamante ni dugg nañ àjjana ñaar yi rek lañ fay fekk muy cant ak berde cant dañuy sant yàlla di dolleeku suñu borom nag dañu bernde bernde nag fii ci àdduna dañ ci wuutu yàlla waaye bu ñu demee nag yàlla daf ñuy wuutu ci bernde gi moom moo ñuy berndeel boppam ndax joxe ñam mooy bernde ndax moo wax ni bépp mbindeef boo xamante ni sàkkal naa ko gémmiñ maa warloog moom li may def ci moom comme benn jëf rek la nit mën a jëf ci kaw suuf wane ni wuutu naa suñu borom ci jëfam mooy jox lekk ndax yàlla neewul ni jëmm ju ma wàccee ci ko suuf maa ko yoral kër wala maa ko yoral oto wala maa ko yoral lu mu mënti doon jox nit mu lekk rek la ni moom moo ko warloog doomu aadama kon Serigne Touba xiir ñu ci di jox nit muy lekk di jox nit muy naan di bernde doomu aadama yi lépp lu ñu am ñu koy bokk ak doomu aadama yi nga gis Sénégal sax muy bokk ñam ak foo dem lekk foo dem naan foo dem mën faa dund tey jii buñ ko doon jox ay nit ci Sénégal ci ay murit lañ koy misaalee kon Serigne Touba jël nañu jël jëfi suñu borom ji gën a màgg mu teg ko suñu loxo jël jaamu yàlla gi gën a màgg di teg ko suñu loxo muy cant kon màggal gi cant ak bernde la. GTV 70.